chronique d'une spoliation ñun ñu liir ko moom Moussa Balla Fofana ànd nañ bind les territoires du développement ñun ñëpp ñu ànd liir ko bu weesoo loolu ñu bind ay programme ak ay livre programme solution bi ma njëkkee livre programme la waaye ñun ñëpp fekkee nañ programme jën na te ñu énumérer ci ay solution ci pàcc yi nga xam ne jàppoon nañ ne war nañ cee indi saafara ñun ñëpp ñu liir ko waaye nag xanaa xanaa nag loo bañ nit bañ nit bañ nit naan la projet la projet lan mooy projet ba mu jël livre tuddee ko la projet xanaa nga mën a ba waaye déedéet nekk ci comparaison boo xamante ne chaque jour Macky Sall dégg naa mu naan Macky la lim fi def. Naby Vision nangam nàngam man leen da ngeen xamul lu xew. 1960 ba 2012 li Macky Sall yor ci budget 54 cinquante 52 ans yi Diouf. Senghor war da toog boo matul yoruñu ko ci budget seen bopp yi man kenn xamul ay yéen xeetu nit ngeen rek ñu jox leen programme deux mille vingt quatre def ko ci cinq axes mais yéen ba tey nee ngeen xamoo leen lan mooy projet waaye ñun ñun ñi nga xam ne ñun ñooy topp Ousmane Sonko ñun xam nañ lan mooy projet bi ndax Ousmane Sonko daa ñi du liirul daa wax ak ñoom a wax ak ñoom a wax ak ñoom ba furi ci lan mooy le projet daa defi vidéo di expliquer defi live di expliquer ñun ñëpp xam nañ lan mooy gis-gisu Ousmane Sonko ci Sénégal bu baax Sénégal boo xamantene li ñëpp bokk ñëpp jot ci te loolu loolu lañ àndee ak moom Sénégal boo xamantene kenn du toog rek parce que maag diw ñoo bokk maag diw sama xarit sama maag moom andol àndoon xeex politique jàpp askan wi di ko pasar pasare ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu Sénégal boo xamantene day souverain Sénégal bu moom boppam tubaab bi dootuñu diriger. loolu ñu xam loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci. Sénégal boo xamante ne euh, dafay dafay riche prospère ñun ñëpp xam naa xanaa xam nañ loolu mooy la waaye Sénégal boo xamante ne séddale bi day mbaanu dootul am euh, ku la koo xamante ne liñ naan euh, xawma ma bras ak yu ni mel moo tax booy naan leen liñ ko jeex na ci réew mi ak toog muy dox jeex na ci réew mi waaye bu ñu génnee lii ci projet bi lan moo des ci projet maanaam projet bu ñu ci génnee lii nii yëpp ñu wax nii mooy gis-gis ci souveraineté moy souveraineté ci fànn yëpp nag mooy benn gestion bu bu comme Macky Sall na ko waxee woon sobre et vertueuse mooy ay nit yu jub yor xaalisu askan wi yorin wu jub dëkk boo xamante ne dafa moom boppam dëkk boo xamante ne maanaam xaalis boo jël ñu jox ko nguur dañuy xam fi mu jaar mooy transparence waaw waaw lii lii mooy projet lii mooy projet bi di wala yéen yéen lan la lan mooy seen problème xanaa nag lii lii lii nekkatul jàmm projet bi yomb naa comprendre nag yaa xay euh, nañ bàyyi sàcc alalu réew mi gouvernement yu ñuy ay njiit yu ñuy fal ñuy sàcc alalu réew mi ah nañu fexe ba suñu ressource naturelle yii ñu teg ci suñu loxo bopp te séddale ko séddale bu mbaanu parce que dañ ne ressource peuple bee ko moom loo xamante ne maanaam suñu suñu li ñu naan souveraineté maanaam dëkk boo xamante ne dëgg-dëgg moom moom boppam ah dëkk boo xamante ne justice bi maanaam du jeng comme li fi li fi yàgg am dëkk dëkk dëkk boo xam ne daal ci jub lay dox ak ci ak ci progrès mooy développement waa lii lii lii ku ko comprendre loo bëgg a comprendre yaa Naby Vision ñun sonn nañ ci yéen opposition cinquante ans ngir yàlla may leen ñu jàmm pas le le projet dont hmm. on parle. vraiment dañ koy wax rek. ku ko am na ma ko envoyé une. no mais waa ji dama koy seetaan quoi mais waa ji dama koy seetaan mais waa ji de un euh, waa ji ku réew la saa da nga gis ni muy waxee des fois keroog wax na ba saaga Clédor ah Clédor Sène nee na le fameux projet <clears throat> ku ko am na ko ko yónnee la fameux projet ku ko am na ko na ko yónnee jaru ñu la ko yónnee jàmbar demal rek nga visionné ay waxu Ousmane Sonko di nga xam lii lan mooy projet bi. Ousmane Sonko mi bind livre solution ñeuw gaay teggatal ko programme bu reuy bi ni Ousmane Sonko juste pour nek nekk maire Ziguinchor encore faut bindaat livre wax fi jëm wara a jégal jëmale Ziguinchor fan la jëm lepp lu muy wax da koo documenté ko ci est-ce que Sénégal nag duñ ni duñ ñoo xam ñi ëpp duñ dañuy lire. ñu ci bëtt ëpp duñu lire duñu lire mais Ousmane Sonko moment bi nga xamante ni sénégalais ñi ngi doon tok muy dem législative amul won doole. Diallo plus fort reste boobu muy wax ak sénégalais sénégalais di ko bàyyi xel muy wax muy dugg ci seen seen nopp Ousmane Sonko bi muy demee législative ba dem présidentielle. Nabi continuer di wax ak sénégalais woote solution livre bi teg ko askan wi toog di ko déglu ñu def ko direct ci site yëpp muy wax ay journaliste ñoo xam te ne du morom ci journalisme di ko poser ay questions. fi mu Sénégal projet bi ñuy wax muy wax nit ñi di dégg sénégalais di ko seetaan di dégg lan mo waral biñ ñu ba moment avant élection yi lépp lu xaw Sénégal lu Macky Sall def rek ñu génnee wax ju ko Ousmane Sonko fu Ousmane Sonko waxé lool ci fu Ousmane Sonko waxé ci mom sa bop Ousmane Sonko di woy souveraineté Ousmane Sénégalais bu démé ba xam luy pétrole luy gaz luy zircon Ousmane Sonko motax wax sénégalais yéwu ci xam lan moy projet bi fan la wara a Sénégal ci mom sa bop ci ag indépendant ci mbirum économie ci mbirum agriculture ak tout Sénégal yi dégg ko lool moy projet bi bok xamul sénégalais duñu lire mais Ousmane Sonko def na projet bi sen bop ak sen xel bayil tiaxan sa waay bàyyil caaxaan te nga wax ak yar nit ñi fi ñu la gëna yew gën la yare di ko ëpp la xam-xam ño fi nek boobaak léegi definitely yaangi say nan Ablaye Wade Macky Sall def na fi li def na fi li def na li def na def na li avant Macky Ablaye Wade defon te ñi dinañ def lu ko raw bayil sa tiaxan yi nga nekké bu ne nga ni autoroute ay centre Abdou Diouf ay arena ay nii loolu mooy ay yor am réew génnal foofu yóbbu nga dem boori Saint-Louis nga dem yenn yenn régions yi ba xam lan moo fa am bàyyil caaxaan bu dee da ngay journaliste nga nekk journaliste bu dee politicien nga nga summi sa yére politique jàkkaarloog nit ñi ci terrain bi moo gën. ah le le projet dont hmm. on parle. vraiment dañ koy wax rek. ku ko am na ma ko envoyé. Ndoye <laughs> tey bilan dafa ngay def. bul fàttali bilan dafa de sénégalais yi ñoo ko sanctionné seen bopp au premier tour à cinquante quatre pour cent virgule vingt huit maa ngi tuub sénégalais yi da leen mere ci loolu da nga yéex a def bilan bi nag li jamonoy campagne bi la doon tane <laughs> yàlla seet nañ sa gàdd dina dagg parce que moom xa xale nga naa ni li des ci sa àdduna yëpp opposant nga ko nar a nekk ndeysaan fi ñoom Mouhamed Diallo ak Babacar Kébé jaar ba nekk journaliste nag nga nekk animateur ba léegi yaa ngi ci yoon woowu de wàcce goo ko de baaxul woon nag <laughs> xaw ma kañ lay baax muñal muñal muñal dogal yàlla da koy muñ bu la neexul. alors salam wa rahmatullah chers internautes euh, mbokku Pastef tout comme tout le monde maa ngi nuyu ñëpp euh, je voulais juste faire ben n'jangal bu ndaw rek euh, ci li nga xamante ni mooy la situation actuelle donc du pays évidemment souvent damay gis euh, ñu bari commencé di am lu leen di metti ñi di ñaxtu euh, loolu nak euh, moi je pense que c'est tout début est difficile comme l'on dit may xamal ne rek li tax ñu doon euh bokku na ci ñu fexé ba jubal te jubal bobu yémaluñ ko ci rek autorité yi nga xamante dañ doon yor alalu askan bi waye bokku na ci képp ko xamante évidemment euh, ci réew mi nga nek te ca doxalin bokku na ci li nga xamanteni eh, xagn na doon na am galam parce que loolu tamit du ni simplement une question de ñi doon gérer les deniers publics eux ils vont rendre des comptes ça ça c'est indéniable manam lo xamanteni maintenu la mënuñ ci delu ginaaw donc euh, parce que c'est une demande sociale c'est le peuple qui veut que ñi doon gérer ay alalam ci anam yi ko doon gérer ñu mën ci rendre compte ci anam yu muccu ayib donc là je pense que on est tous conscients donc de cet élément là et je pense que fofu la ñu toll ci diggante bi nga xamanteni amna waye ñima bëggoon waxal moy ñi nga xamanteni moy mooy yi surtout ndaw ñi na ñi nga xamanteni ño doon ci kaw mbedd mi ño doon sanni ño doon nangam etc etc évidemment tay jii japp na ni ñun suñu jëmi bop mo xam ñi nekk fofu ak ñi nekk fenen nous considérer que ni les premières victimes par rapport à ce projet mooy ñun maanaam ñun ñu doon xeex Tay, bu nous xool ku njëkkal loru ci li nga xamante ni tey moom la ñu dëgmal bëgg mi baax ñun les sacrifier sacrifier nag bu ñu koy wax moonaam mooy euh, projet bi mënta baax tant que ñun ci suñu jëmi bop sentiruñ donc les conséquences donc du projet parce que euh, bala dara di baax faw donc mu sukkandiku ci lu bon liñ fi nekkoon defar ko manam nak défar bobu il faut faut, faut, il mu am dem ko des conséquences surtout il gëna nga l'ensemble des sympathisants ñi nga xamanteni de dañoo di xeex yak alal wala seni euh euh cër wala ño xamanteni faatu won nañ ci zone wala seni man gëm ni bu les premières victimes du projet nañu japp ni ñun wa pasté ñun nga parce que effectivement dañu bo bëggee jubbanti tank bu lago tank tank bo xamanteni dafa yàgg a pank faw on bokk ci faw onk bokk ci onk bobu nak moy li nga xamanteni tay ñoo ngi koy faral di gis moy marchand ambulant wala muy nek kenen ko xamanteni tay les occupants donc de la de la rue ñu ni len tay dañ len di euh, bëgg génné fofu mo xam ñi koy def andon nañu ñun wala andu ñu ñun waye moment bu propice la pour que defaraat bi ñuy defar noonu muy méttee ci ñom aussi non lay méttee ci ñi nga xamanteni ni yoroon nañ euh, alalu askan bi euh, caxar caxartee ko waaye loolu la bëgg juste attirer l'attention donc des uns et des autres moo di tamit wax yalla euh c'est vrai metti na bu ñu euh, comme ne ni ñu nekk ci laisser-aller bobu mais dañuy poser la question jusqu'à quand laisser-aller bobu mëna continuer donc est-ce que duñu wat ci suñu biir xolaat naka lañuy def en souffrant pour que évidemment le meilleur donc de nous-mêmes soit demain donc réalisé manam li gën ci ñun ëllëg lolu nek lo xamanteni lu ñu mëna réaliser la te kaw faaw ñu souffrir parce que la souffrance moy yoon la rek yoon bobu faaw mu am au début dina metti lool waye nañ ko muñ ngalaway nañ japp ni bokku na ci li tax ñuy cotiser na ku nek japp ni li yàqu ci yow jàppe ko ngëneel ci li tax projet bi ëllëg bu dul yow tamit nga xol ko ci sa njaboot ëllëg nak ban njeexital lay am ci mom parce que faut pas aussi ñu fàtte ni man damay faral di wax ni man sama wàll wéy na ci lu ma mën a jëriñoo ci ci projet PASTEF mais li ma amal solo mooy naka la ñuy def ba bu cinq ans weesoo en tout cas avenir ñi nga xamante suñuy doom lañ wala ñu di ay tuut tànk wala ñuy ñëw bu ñu ñëwee fekk fi Sénégal goo xamante ni dañ naan euh, euh, jaara dañ naan jaaraama donc suñuy mag jaaraama donc suñuy baay jaaraama suñuy maam ñi nga xamante ni xalal lañu yoon wu ñu mën a jaar nek ci jàmm ak salam loolu je pense que mo wara nek l'esprit qui doit sous-tendre li nga xamanteni moy les sacrifices yi ñi euh, sentir ak yi nga yi ak yi ñewugul nak donc je pense qu'il faudrait ñu gisee ko nonu am compréhension bu mat sëkk ci lu mel non xamni le sacrifice la souffrance les pertements yooyu yëpp da fay nek lo xamanteni au finish li ñu gëm moy bu projet bi doxé ni mo war doxé euh njëriñu ñëpp lay doon te amna mu dem mais il faut ñu jubanti

événement bi di ñëw bu dé dañu ñu xaar ba ñu rombu tabaski parce que dañu am lu ñu kër gi c'est vrai mais bu tabaski wesso euh, dañuy dëgmal donc li nga xamanteni moy euh, moy magal magal bu wesso gamu day ñëw gamu mais kon kañ am temps defar té li ñuy ñëru ñu ñëpp la je pense que euh, à ce niveau davantage donc de ce niveau à ce niveau war nañu jox davantage donc de compréhension pour que li ñu bëgg incha ñu réussir ko ci anam yu mat mat man waye tamit du té aussi autorité surtout donc les dirigeants actuels mo xam maire yi la xam ku il faut aussi ñu gëna soigner le discours un discours responsable certes mais également un discours vir teinté donc de de de discipline faut yar am ci te arrogance bi ñu dans la manière de parler avec donc les gens sénégalais yi difficile ñu man japp na ni bo waxtane ak ñom dégo mais li am li li xaw doy waar te ko don xex moy arrogance manam ma am doole may état lool aussi du du doxalin il faut ñu xoolaat la manière d'entretenir des relations avec les populations surtout avec donc les jeunes jeunes yi ñoo gëna bëgg a motax ñu jël projet bi teg ko ci parce que xam nañu seen jëriñ ci la nek nekk aussi bu ñuy am ak ñom discours mo xam maire lañ mo xam ministre lañ mo xam DG lañ ak ku mëna don nañu wat le langage nañ ko defaraat c'est-à-dire que mën wax dëgg waye deug aussi bu raflé keur gu mu ñu génne ko donc deug c'est pas dire la dire toujours donc la vérité de la façon bi ñu jàpp il faut donc dire la vérité quel que soit donc fu ñu mën a muy fi muy bitim rew muy fenen deug mën nañ ko wax nit mu dégg ko mais am nga noo koy nit mu muju mu muju jur donc safane donc par conséquent deug bobu amul solo alors c'est pas une question de dire tout ce que l'on pense comme niko ko jappé ko wax ma ni oui man luma xalat lay wax luma ragaluma non la question, c'est pas de dire tout ce que l'on pense, mais c'est de penser tout ce que l'on dit. Penser tout ce que l'on dit vaut mieux que dire tout ce que l'on pense. Mais également, faire ce qu'on pense vaut mieux que faire tout ce qu'on pense. Donc, il faudrait que les gens aussi sachent raison garder. Autorité, encore une fois, l'arrogance, la façon de nous maltraiter, euh, ak puis il faut indemniser les gens c'est ça la vérité Qu'est-ce que... Moi, je travaille à côté d'un projet, bon, je ne dirai pas donc le nom pour faire des trucs, mais euh, bon, il faut le dire parce que c'est un projet américain. Mais Nous ak ak nous, nous nous, dañ ko xam donte ni sax da nga nous, ni mbedd nous fi mbedd nous ce qui da impacté c'est des acteurs il faut d'abord donc les identifier au départ quelles sont les personnes qui sont impactées même sous que que c'est illégalement les occuper donc les rues parce que domaine public non non ça c'est une mauvaise façon donc de voir on n'est plus donc dans dans dans le cadre donc des normes internationales de de la de finance dañ activité économique nga fekk ko fi mu ko fekk donte ne da nga ab projet bi moom moom ne ko fa mais le fait que nga koy yëkkati da nga koy impacter parce que tu risques de le rendre davantage vulnérable et cette vulnérabilité mën na ko conduire donc dans une situation de pauvreté extrême moo tax ñu ni quel que soit muy maire muy keneen bu ngeen bëggee defar tamit il faut aussi respecter ak ak yelleef yi tuñ ci jamono ji buur mooy ñëw def lu ko neex il faut également ngeen sàmmanteeg àq ak yelleefu doomu aadama yi laa là également c'est indéniable c'est impardonnable c'est des yoo xamante ni man dama ko gëm ñu koy doxalee te il faudrait de également ngeen tënku ci. ba déménage ku déguerpir bala ngeen la déguerpir il faut les identifier xam les activités yi ñu doon xool nu ñu leen mën a def ba indemniser leen loolu mooy li nga xamante ni tey taarixu jamono foofu la toll. tolluwaayu joxinu jamono foofu la toll bu ngeen bëggee am beneen comportement nag parce que nguur gee ko moom mairie bee ko moom da ngeen di jóg par force là je ne suis pas d'accord il faut indemniser et avant d'indemniser il faut identifier les personnes les engager l'engagement ce qu'on appelle l'engagement des parties prenantes il faut discuter avec donc les gens xam ak ñoom lan mooy les enjeux xam donc lan mooy menace à leur niveau quels quels sont donc leurs intérêts dans le projet comment leur expliquer tout cela tenir donc des des séances de sensibilisation avant qu'un projet n'ait lieu loolu il faut que aussi ñu euh, def rupture anti système boobu ñu doon wax il faut mu deñ te feeñ ci suñuy je pense que la autorité war nañ ko gën mettre en œuvre bu ko defulee nag donc franchement damay damay gis ni euh, def li neex fi c'est pas parce que c'est l'État c'est pas parce que c'est la mairie mais nit ñi aussi dañu am ay àq ak yelleef te dañoo war s'amonter sàmmonteeg et là ce qu'on appelle véritablement <clears throat> la partie de la prise en charge donc des des soucis et des parties et des intérêts donc des parties prenantes quel que soit le projet qu'on mettra donc en œuvre vous nécessitez donc de déplacer il faut de la réinstaller